إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala nga la way jaam bi foo toll del sant sa boroom fii ak yaa ngi koy sant mu lay dolli fii yéeg yaa ngi koy sant muy tegg say tiis gannaaw ba ñu ngi julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam mi mu yónni woon ngiri mu teete ñu ci yoon bu ñuy texe àdduna teete ñu ci yoon ba ñuy texe allaxira wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima gannaaw loolu mbokk julit sunu xutbab tey bii ñu ngi ko jëmale ci bis bu màgg bii nga xam ne ñu ngi koy dund muy xéewal gu ñu yàlla defal weeru koor ak a baax muy ngeen ji weer yal nañ ca yàlla yeggaleeg jàmm waaye benn weer la ci at mi amma suñu boroom jalla waala wërsëgal nañu benn iit boo xam ne semaine bu nekk mu daal di am muy la nga xam ne nii mooy bisab aljumma borom bi daal di santaane ne ay yéen jullit ñi su ngeen déggee noddu ca bisub aljuma day lépp loo xam ne yéene nga ca woon bàyyi leen ko ca mbokk albay u mooy bépp effort boo xam ne yaa ngi koy def ngir am ca njëriñ bàyyi leen ko ca ngeen dem wuy ji tuddug yàlla googee suñu borom nee na loolu mooy li gën bu doon xam ngeen loolu kon mbokk mi ngi noonu di ndigal bu yàlla joxe ci daje bu mag bii nga xam ne moom la ñuy daje waaye mbokk julit ndax loolu dong muy ngëneelu aljuma bu doon lool rekk kay doy ne ngëneel waaye nag nañu xam ne suñu borom subhanahu wa taala dafa am philosophie yu rëy muy xikma yu màgg yoo xam ne da ko dugal ci biir bis bu màgg bii ñuy dund tey bokk na ci loolu suñu borom yàlla xeet yu jëkk yi ba nga xamee ni nii bew nañu fetteerlu nañu da leen réeral ba xamatuñu lan mooy aljuma yahud yi bon yi jël la nga xam ne mooy samedi di ko màggal jàpp ne mooy aljuma te mooy bis bi yàlla taamu ngiree jullit ñi jagleel ko ko daja ca gannaaw loolu nasaraan yi ñëw ñoom it jël dimanche ñu jàpp ne c'est le jour du seigneur comme ñoom niñ koy waxee jàpp ne mooy bis bi yàlla taamu suñ borom yàlla réeral leen ci loolu ngir beew gañ beewoon amma ñun julit suñu borom yàlla tànnal ñu ajjuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon mi ngi noonu ajjuma samedi dimanche noo nit lay demee yowmal qiyaama ñun xeetu lislaam la yàlla di jëkk woo atte ñu tabbal ñu aljanna avant yahudi ak nasaraan ya loolee mbokk yonent bi ne ñooñi suñu gannaaw la ñuy topp nga la wayu ndawal julit heure bu àjjuma ñëwee mi ngi lay fàttali sa position ci àdduna sa position ci àdduna xamal ne yow yaa war a jiite yow yaa war a woote kuy topp yow la war a topp waaye waroo nekk mukk al toppee loolee gaat nga ko sa bopp ngiree ëllëgi ki si biir nga bokk ca ñuy jiitu aljanna yal na yàlla boole ñu ca ñun suñuy ndaw ñëpp e yéen bokk julit dañu xam ne day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mboolem bis ci semaine bi yépp àjjuma moo ci gën moom la yàlla tànnoon bind ca sunu baay aadama alayhi salaam dogal ko aljanna gannaaw ba wàcce ko ci kaw suuf suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne àdduna du jeex lu dul bisu aljuma looloo tax àjjuma ju nekk malaaka yi bàyyuma yi mboolem bindaafan yi ba mu des nit ak jinne dañuy tiit mbaadu àjjuma ji la àdduna di jeex gannaaw loolu mbokk jullit alaaxira ga ñu yàlla di atte bisub àjjuma boobee lay doon képp koo xam ne yaa ngay tabbi aljanna yaa nga cay tabbi bisub aljanna bisub àjjuma loolu moo tax ba jullit ñi di ko gaat nga gaat ngaa ko ci taaru gaat ngaa ko ci wax lu baax jëf lu baax jàppalente ngiree gaat nga googu bis ba leen yàlla di atte ca àjjuma ju màgg jooji ñu bokk ca mbooloo ma ñuy atte gannaaw ba tàbbal leen aljanna yal na yàlla boole ñu caa ey yéen mbokk julit suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam wax na loo xam ni ña dem ca jumaa ja ak ña demul ca jumaa ja ñoom ñépp ñoo ca bokk yem nee na bisu àjjuma de yàlla def na ci benn waxtu boo xam ne lu ci jullit ñaan yàlla subhanahu wa taala may ko ko su dee kay la muy ñaan yiw la waaye yonent bi gàttal ko lool gàttal googee lu muy firi mooy ngiree yow jullit bisu àjjuma yépp nga def ko bisu ñaan bala laa waxtu waa raw mi ngi noonu mbokk jullit àjjuma foo tollu del ñaan yiwu àdduna yiwu allaaxira ñaan bi gën a tënk ci ñaan yépp rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annaar ca mooy yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira ey yow mbokk julit ajjuma ji day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal na nee na julli juróom day waa ji koy taxawe julli gu nekk dana far bàkkaar yo dox ak digge digganteeg julli ba ko jiitu waaye naka noonu it li nga xam ne mooy aljuma képp koo xamee ni nii yàlla subhanahu wa taala wërsëgal na la nga koy taxawe ajjuma ju ñëw dana far bàkkaar ya doxoon digganteem ak ajjuma ba ko jiitu fii ak yaa ngi moytu alkabair muy bàkkaar yu mag yooyee nekk di alagaate ay yéen mbokk julit bokk na loo xam ne nii dañuy koy taarale bisub aljuma mooy la nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon nañu ko mu ne xam leen ni day ajjuma day mooy bis bi gën a màgg ci ajjuma yi ca la leen yàlla di dajale ëllëg yowmal qiyaama ey waay fu ngeen toll day leen bari di julli ci man amul kenn ci yéen kuy julli ci man benn julli lu dul yàlla dana julli ci moom fukki julli julli ga yàlla di julli ci yow mooy ngëneel yi muy wàcce ci yow njéggal ak yërmaande ga muy wàcce ci yow heure boo jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la gën a gàtt allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim mi ngi noonu Sénégal yi miin nañu lool laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doonte ne mbokk julit ba ca gën mooy nam ko jàngale woon ca mooy allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim wa ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد رواية بابو موغر سيوتي تريني جانغ سنغال ويلا كل حال موي صلاة بو خمني دي أن صلاة إبراهيمية غناو لولو نو جليتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم باخنا بام ديس جولي غو خمني دنجتا سوس اي بدا ولا شرك waaye noo jullee ci moom sallallahu alayhi wa sallam baax na sahabatul kiram laaj nan waa yu mu yàlla yónni naka la ñuy jullee ci yow yow nga ñuy delloo julli googee te nee na képp ku julli ci man malaaka yi gaaral ma ko ma ñaan yàlla mu julli ci yow ñu ne ko loolu ni muy nekkee gannaaw ba nga xamee ne yow ah doon nga ko ràpp ci biir suuf mu ne déedéet yàlla dafa araamal ci suuf du lekk la nga xam ne mooy jëmmi yonent amul kuy yonent yàlla yàlla dogal mu faatu bis bañ ko suulee buñ ko génne woon cinq mille ans après it day day mel noonu ndax yàlla daa araamal suuf lekk ko loolu mbokk kon mooy la gën a màgg lañ koy taarale julli ga ma ngay commencé ca guddi ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bari leen di julli ci man ci guddig aljuma ak ci bisub aljuma gannaaw loolu mbokk jullit yow mi yàlla wërsëgal ngay war a dem ca jumaa ja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne danga majeur ngalla waay wareef la ci yow nga sang bisu aljuma boroom xam-xam ya am ca juyoo ndax sang ba day farata walla sang ba day lu ñu sopp rekk la nga xam ne moo ca gën a digg doomu gën caa dugg xel mooy sang ba farata la ci képp koo xam ne xeet gu naqari mi ngi ci yow yow ma xëyoon ca tool ya xëyoon ca atelier ya ba ànd ak ñaq ak xet farata la ci yow nga sangu bala ngaa dem di lor jaami yàlla yi amaa yow mi nga xam ne jaaroo foofu loolee sunna la nga def ko mi ngi noonu mbokk li nga xam ne nii moom mooy bisu aljuma mooy bisu taaru bisu daje ak suñu boroom ca la nga xamee ni ni muy ab néegam waaye daje ak la nga xam ne mooy jaami yàlla yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaaxuñu mu ne ngalla waaye kenn ci yéen bu jógee dem ca jumaa ja na fexe na sangu na sol yére yi gën a baax ci ay yéreem gannaaw ba na laal parfum su dee am na parfum gannaaw ba na soccu lii mbokk ay teggin la yoo xam ne ku nekk ci ñun war na koo góorgóorlu jëm koo bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne day képp koo xam ne def na loolu mooy sangu na parfum wu na socc na sol ay yéreem ñëw bi mu ñëwee ci jàkka ji jéggiwul kenn xanaa ñëw na rek julli la nga xamee ni nii moom la yàlla dogal mu julli ko ku mel noonu day yàlla subhanahu wa taala dana ko baal la nga xamee ni nii mooy ay bakkaaram ay yéen ba ko jullit dem jumaa day ku ko def rek def nga sa waru gar waaye nag suñu borom moo ñu sant ne dee leen jëkkante ci àjjana joo xam ne yaatu waayam ba moo gën a yaatu asamaan ak suuf looloo tax ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ñu ñaax ci teele dem ci jumaa ja borom xam-xam yi dañuy wax naan bokk na ci biddaa yi nit ñi jëkk a sos mooy ñu bari tey dañuy bàyyi ba dégg ña ngay xut ba ñu doog a jóg dem mbokk déedéet ajjuma jaamu yàlla gën cay def ma ngay commencé ca teel faa dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal ñu nee na bu bisu ajjuma jotee yàlla day yebal ay malaakaam ñu taxaw ci buntu jàkka ji ku ñëw ñu bind sa tur ku ñëw ñu bind sa tur mu ne ña nga xam ne dañoo jëkk a ñëw dañuy mel ni ñoo xam ne jënd nañ giléem rey ko sarax ko miskin yi ñaareel ñooy ñëw ci ñaareelu waxtu wa dañuy mel ne ñoo xam ni jënd nañu nag sarxe ñetteel mel ni ñu jënd xar sarxe ñeenteel mel na ñu jënd ganaar sarxe juróomeel mel na ñu jënd ab nen sarxe ko mbokk kon da kii dem na jumaa kii dem na jumaa waaye mbokk ndax giléem danañ ko jënd akub nen loolu moo tax ba mbokk julit ku nekk ci ñun war nay góor-góor lu teel a ñëw ci jàkka ji fii yéeg yaa ngi toog ci jàkka ji malaaka yaa ngi lay ñaanal allahuma ixfir lahu allahuma arhamhu fii yéeg yaa ngi toog ci jàkka ji ñu ngi lay bindal yoolu kuy julli même bu dee ne yow julliwoo mbokk loolu la malaaka yi di nekk ba baa dégg imaam ñëw malaaka yi lem seeni registre daa di nag ñëw toog di déglu xutba bi ñoom tamit ca mooy kon koo xam ne imaam dalaa jiitu ca jàkka ja lii du ngëneelu registre ba malaaka yi yor soo tur du ca nekk ndax ka ñuy mujj noté mooy la nga xam ne mooy imaam loolu mbokk di mbir moo xam ne it ku nekk ci ñun war a góorgóorlu bàyyi ci xel mbokk juma dañuy jàngal ay teggin islaam suñu leen asiatique yaak nangam ak nangam waaye jullit rek moo war a am teggin jullit la yàlla di yar yonent bi alayhi salaam xamal ñu ne su ñëwee ci ci jàkka ji galawaay bu fi bul xatal kenn imaam buy xutba nee na boo gisee kuy wax sax boo ne ko yow noppil yow sax indi nga coow ci jàkka ji waxuma ne kay wax mais yow mi naan ko hey noppil waay nee na yow rek indi nga coow ci jàkka ji am maa koy wax nag dañu waxul ay mbiram kon discipline boobu nga xam ne góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp dañ koy toog di déglu imaam di wax ak ñoom loolee mbokk nga ñël bu réy la looloo tax borom xam-xam yi sax dañuy wax heure boo jógee sa kër di dem juma yii na wal sakkuwaali xam-xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku jóge këram di sakku ji xam-xam malaaka yu ñu romb dañuy wàcc seeni laaf ngir respect ba nga xam ne moom lañ ko jox ci na am loolu daf ñuy jàngal erreur boo xam ne suñu maam yi def nañ ko donte ne yàlla na yàlla fay leen moo ko yow jël juma suñu ñëwee nga indi li nga xam ne mooy su xutba arab mille personnes deux mille personnes daje ci jumaa ji ñi ci dégg arab mutuñu dix personnes pendant des années et des années heure boo ñëwee lakk leen arab dem mbokk loolee ban njëriñ la leen amal loolee kon da nga war a fexe jumaa mbokk mooy université bi gën a rëy bu lislaam am jumaa mooy école supérieure wala collège loo ko mën a tudde bi gën a rëy mooy dajale ñëpp su ko defee foofu la ñu war a am occasion jàngal leen pas-pas bu sell teggin yu sell jukko yu sell loolee jumaa bu jumaa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñu wax ni ay nit day du ñu bàyyi di sàggee na jumaa lu dul yàlla kasta seeni xol na am mbokk julit parce que julit dañoo war au moins chaque semaine nga dégg waaraate boo xam ne nii day jóge ci qaala allahu qaala rasulullah loolu nag mbokk munta am ci jël ab xutba rek wax ko ci arab daal di daal di jàll mbokk julit suñu borom yàlla ubbil nañu ci juma loo xamee ni ni borom xam-xam yi dañ naan gisuñu benn jaamu yàlla bu gën a yomb ëpp tuyaaba ci wax ji yonent yàlla wax yonent yi bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasala waxta sala borom xam-xam yi am nañ ci ay waxin ala kulli xaal am na ñu ciy wax ñu ànd ak seeni soxna am na ñuy wax ni ka nga xam ne raxas na boppam ba mu set raxas desitu yaramam ba mu set sol ay yéreem teere dem ca jàkka ja jege imaam déglu bu baax li imaam di wax nee na ko mel noonu day jéego bu mu jéego dafa mel ni ku wóor un an taxaw naa fi la guddi un an jéego boo jéego ba noonu lay demee loolu mbokk ngëneel la boo xam ne kenn xamul ngëneel boobu ni mu toll ci xadis yooyu xadis yu wér la xataa Cheikh Nasrul Albani nee na xadis yu wér la muy wane it ne ka gën a sori fa muy jóge ci jumaa ji moo ëpp tuyaaba borom xam-xam yi di wax ne dox dem jumaa moo gën dugg dem dugg cotte dem jumaa wala la xewoon muy gileem ak mbaam mbokk kon lii mooy la nga xamee ne nii jullit bu nekk war na cee bàyyi xel ca la nga xamee ne ni mooy màggal bis aljuma mu bokk ci ngënil yooyu itamit ka dem jumaa ji ak ka demul jumaa ji yépp war caa bàyyi xel yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man qaraa suurat alkahfi yowm aljumaa adaa allahu lahu min annuur maa bayna aljumaatayni koo xamee ne nii lii di suuratul kahf jàng goo ko ci bisub aljuma yàlla dana la may leer goo xam ne day nekk sa biir xol ba ba ajjuma di dellu siwaat loolu di ngëneel bu nekk boo xam ne ku ne war na cee bàyyi xel ña dem jumaa ak ña demul jumaa mbokk ñu bàyyi xelit bisa aljuma lu ci waay man ci def loo xam ne ni lu baax la rawatina sarax yi jëm ca ñe néew doole ña loolee mbokk yiw la boo xam ne yiw bu rëy la bokk na aada yoo xam ne nii donde woon nañ ko suñuy maam bisu ajjuma jotee miskin yi génn di yalwaan ci ajjuma ji naam loolu lu ñuy jàngal mooy sunu maam yi ñoom xamoon nañu génn ay sarax bisu aljuma ca loolu it la ñuy wax ci borom xam-xam yu mag ya ñu bëri ci ñoom aljuma dañu ko doon waajal am loo xam ne dañu ko cee génne ci ay sarax ba lenn ca ñoom sax nee nañu. ne sarxe ci ajjuma gën naa màgg sarxe beneen bis ni sarxe ci weeru koor gën a màggee sarxe ci beneen weer mi ngi noonu bokk julit kon lii mooy la nga xam ne nii yonent bi alayhi salaam danañu ko jàngal yow mi nga xam ne da nga ñëw aljuma amul sunna boo xamee ne nii dañ naan lii mooy ngay war a julli avant aljuma sag coobere la bu la neexee julli ñaari rakka ñeenti rakka fukki rakka yaa xam ba ba imaam di ñëw doonte ne nag sunnal nañu gannaaw aljuma moom na doon ci jàkka ji la wala du doon sa biir kër la nga julli ñaari rakka wala nga julli ñeenti rakka lii mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaaloon na ko ca àjjuma jooje gannaaw loolu mbokk julli suñu borom dani fa ida qudiyati salaa fantashiru fi l ard wabtaxu min fadlillah waaye wazkuru llaha kasiran laallakum tuflihun xam leen na àjjuma jeexul fi julli gi jeexe suñu borom dani su julli gi pare it tasaaroo leen sàkku ji ngëneelu yàlla ba leen ci borom xam-xam yi dañ naan bokk na ci lu gën a barkeel ci lu doomu aadama di sàkku la nga xam ne sàkku nga ko gannaaw aljuma waaye borom bi mu ne fu ngeen mën a nekk tool ya usine ya waañ wa fu mu mën a doon dee leen tudd yàlla lu dari lu baree bari ngir ngeen texe kon mbokk ajjuma mi ngi noonu mooy bisu zikrullah bisu salaatu ala nabi ñeel ña dem juma ak ña demul juma mooy bisu ñaan ñeel ña dem juma ak ña demul juma mi ngi noonu bisu génn ay sarax bisu jàng suratul kahf bisu nekk ci lu baax bisu yor melokaan bu rafet ngiree loolu gaat nga bu rafet nekk ci yow ba ëllëg ci sibir boo dajeeg moom ca àjjuma jañ nar a dajeeg suñu borom mu boole la ca jaamam yëm gërëm tabbal la la nga xam ne mooy àjjanaam ju kawe ja yal na yàlla dëppee la ñoo bépp ngëneel bu muy wàcce ci bisub aljuma yal na yàlla dëpp la ñoo bépp jëf bu mu santaane ñu jëf ko bisub aljuma yal na yàlla defal ñu aljuma dañuy dajeeg moom muy àddina dañuy dem firdawsil aala yal na yàlla musal ñu ci mbugulu àdduna ak mbugulu alaxira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana la tuzi qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين